tàggat yaram Papis Diaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam Ibrahima. Sénégal Côte d'Ivoire ñeenti fan moo ci des. Euh, muy am euh, fukki fan ak ñett si weer bi nu nekk fileek euh, samdi Sénégal di daje ak Côte d'Ivoire muy ñaareelu xaaj seen jongante bokk ci qualification Coupe d'Afrique des Nations nuy fàttali ne xaaj bu njëkk ba ci Abidjan la amee woon Sénégal ñàkkoon si ñeenti bal ci ñaar muy nag taxawalaat li nga xamante ni mooy coono bi ci wara lalu ndax faw mu metti ngir Sénégal mën cee génn lu mu néew néew fokk mu am ñaari bal yu mu jiitoo Guesso euh, équipe bu Côte d'Ivoire euh, fii ci Ndakaaru kon match bi nekk samedi di ngeen si gën am ay leeral euh, lu jëm ci wàll événement boobu la ànd ci ak Mame Fatou Ndoye ci kanam tuuti après journalu 20h bi ñu si ànd ak yéen ba jour marché bi incha allah lu jëm ci wàllu Scrabble la ñuy nag tàmbali dem si ñaareelu. Euh, championnat du monde yi nga xamante ni euh, ci wàllu francophonie la li atub 2012 euh, ca Montauban ñi nga xamante ni ñooy Ousmane Dieng ak Ndongo Sylla di ay doomu sénégalais ñoom ñoo jël raaya boobu pour Sénégal nekk deuxième place di wane nag ne Scrabble bi niveau bi dafa xawoon na jóg metti trop waaye nag seen xarañ xëy na moo tax ñu mujjee cee am ndam ci lañu ànd nag déglu doomu Sénégal boobu ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Pape compétition SCAB day day métti toujours parce que ñu daax SCAB si monde bi toujours ñoo fi nekk donc euh, dañ nit ñi dañuy préparé bu baax donc euh, niveau bi day day day métti top euh, ren ji deuxième lañu jël deux points lañu bàyyi alors que dans le passé gagné woon nañ en perdant de deux points nekk champion du monde mais ren ji deux points rek lañu bàyyi nekk jël deuxième pour dire que niveau bi vraiment dafa métti top mais kontaan nañ trop ci place bi tamit. Ka moom dañ si mën wax li si am rek mooy ni ñu xam ni vraiment champion nga ci milieu scout beeg lool loolu loolu nga ci am daal ay tàccu quoi ay tàccu mais loolu déjà c'est beaucoup ni ñu xam ni que te ñu fi scout yëpp quand ci kii bi nga bokk quoi ci ci équipe ñu koy wéyal xibaar yi ci wàllu tàggat yaram di nag euh, tàmbali euh, ci li aju ci wàllu ñaar fukk ak benneelu promotion ci garde rapproché euh, ñu nag jot seen ay lijaasa ci wàllu arnit maître Abdoulatif mbay moom moo ko amal ci samedi bi la jox taalibe yi seen ay lijaasa si boobu boobule moom nag mu nekk cinquième dan ci wàllu taekwondo di nag ne mbir la boo xamante ni lu weesu wàllu karange dina mën a andi euh, ci wàllu xëy lu am solo ndax dina dem ba jege ci 60 000 personnes ñoo xamante ni daañu mën a am liggéey euh, ci wàllu protection boobu léegi ci la ñu nag euh, ànd déglu ki nga xamante ni moom mooy maître Abdoulatif Mbaye ba léegi ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Pape Fall. c'est que dëkk bi dafa am benn crise bu fi am dafa am problème l'insécurité totale bu fi am te insécurité bi mi ngi ñàkk ñàkk bi aussi soo gisee crise mondiale la léegi nag nit ñi tamit dañoo amul métier xale yi ñoo yàkkamti léegi ku nekk bëgg na am oto bëgg na am kër léegi nag ñun dañ ne ñun participation comme ñun nous sommes soixante mille pratiquants au niveau du Sénégal au niveau des arts martiaux nañ jëm a fexe wutal xale yi métier métier nag li leen gën a jege mooy métier de sécurité mooy gardien convoyeur de fond garde rapproché yooyu xale yu ndaw yi lii aussi seen bés la parce euh, di leen canaliser di def animation ci quartier populaire yi mu nekkoon maître Abdou Latif euh,